بالله قد وصلت عندك الوى وسالني عما يجور البلوى كتابتي حبل لدى البحور كفت حياتي حي المدور علمني الحليم عند الزاخرات مما يشاء وكفى للكافرات لم ينهني عند البحور المغرقات داعي بقمر او دواء الفاسرات يسر للجميل عند المخلقات ما سانني عن جالب لمشركات الصالحات مدد الأنوار عند الظلمات وظالمين من كفاني صدمات سعادتي عند الإله إلهي لي زهرت عند ذوي الملاهي لم ينحني عند ذوي الخمار سوى رداء الله لدى أهل الكتاب من الشقاوة ومن كل حتاب أكرمني من ذوي الإسراك من خادني إليه بالإدراك ناجيت يا نصير يا ولي كفيتني إبليس إلا جولي بمخيب سلم الواقوكي sandarma say rambal tubaab yooyu fokki na wax sëriñ Mbay Géy sëriñ Maamoor Faal laaji wax ca saaru lan faal isa laqaytu lazina kafaroo way leen bu leen deltu gannaaw fal tasbiroo nee na keroog ngi la mu lam ba moom la àndal ka wa wa fadu doxinu fas wa bambaay fardu keroog la yendu lu wax réew ma naa ko tee naa fetel jiyaa mun naa banaa ko ina laa te ju daafi ani lazina amano yaa shaafiu wala ina laa te ju daafi ani lazina amano ngir shaafiu wala julee keroog salaatul xasri inna safinatan bi xayril usri bam selmalee la tabi gaal nga jëm ndar di samandaay ab jant mbaa weeru badar gaal ga di daw masin ba far di sabbal su aanoom ba mbaay boromi laxwaal subaana man fil bari wal baxri ma am ajram jawaari wa kullal jamaa subaana man li jaana bi safiina fi xidmati nisaai lil madina subaana man li fi nahaari alaysa wal asraara fi lijaari سبحان من جعل بسفيما لخدمة النساء في المدينة Je suis là. dama koy wax. mbokk yi yenn yi dellu ci liggéey bi ñi nga xam ne euh, dañuy bernde ci kanam bi lañu toog bu añi jàll yi tam ba ca kanam ak kanam am na yeneen yuy ñëwaat ak yeneen ak yeneen bu ko baax a baax suñu Omar ci xasaay bi ñu doon jàng waxtu wee xat rek waaye li nga doon jàng am na solo lool te itam méngoo na ak bis bi méngoo na ak li ñu doon waxtaan kon nag ñun ñëpp ñu yeesal yéene yi rek euh, daal di ñaan sos euh, ko ci xatlu bi nga xam ne moom lañ doon jàng léegi daal di yëkkati jotaay bi incha allah soxna maam jaara da silwaa jërëjëf yow itam yal na yàlla gën laa sàmm defal lu wér defal ko mboolem personnel bi ak ñi nga xam ne ñu ngi si ku gis sa njaxas bi tey xam ne da ngaa tàmbalee màggal vraiment rafet na trop euh, xam naa kon oustaz ñu def ñaar bismillah ñu jàng alfaatiha